gis ngeen conteneur yi nu mu jegee nii nekk sama ginnaaw donc nii la sësee si këru nit ñi benn pneu la ñu def mu séparé kër yi ak conteneur yi donc dañ koy yéegal ba mu tolloog étage yi maa ngi troisième étage ci terrasse ah waa koñ bi nag nelawutuñu bruit bi bëri na xale yi seen bopp ils sont traumatisés parce que teg yëkkati tëral guddeeg bëccëg camions yi di dugg di gën te xam ngeen ni ci couvre-feu bi camions yi dañ leen may ñuy daw donc aujourd'hui tey camions yi dañuy liggéey guddi gi dañuy def li ñu mën daw lu ñu mën charger lu ñu mën donc loolu moy taxit bruit bi day yok lu mu mën ken nelawatul nekatuñ ci jamm té li du lu lu bees du ndax amoon na fi am société bu ñuy wax TOM bok euh, terminal des opérations maritimes bok ci MSC nga xamné moy Mediterranean Shipping Company ñëwon nañ fi defoon ko fi mut na fukki at ñu attaqué won leen ba dossier bi demoon tribunal ñu xey mu joxe 70 millions ci koñ bi xaalis bobu dugg ci koñ bi indi ciow après ñoom arrêté nañ seen activité waaye ñu ni dañoo bàyyi woon noonu foog ne comme arrêté nañu arrêté nañ waaye ñun xaalis bi gisuñu ko loolu intéressé wuñu du xaalis moo ñu suñu li ñu intéressé mooy suñu wér-gu-yaram ak suñu jàmm donc ba ñu defee loolu ñu bàyyi noonu léegi ñëwaat nañu tey jël ko xam naa dañ ko loué beneen société boo xam ne euh, ay armateur étranger lañu apart Lloyd nga xam ne dañu ñëw utiliser wal moom la ñu indi tey ñëw teg fii ay conteneur nit ñi nelawatuñu nekkuñu si jàmm xale yi dañuy toog sax di tiit ndax xoolal li fi nekk si conteneur ëpp na ñaar téeméer donc dañu yëkkati di teg di yëkkati teg xaaju guddi projecteurs yi di tàkk camions yi di daw imaginer leen mur bi ak conteneur yi pneu bi matul un